taxaw publiquement kàcc ne lii du am ci Sénégal wala lii du ñëw ci Sénégal ndax musicien bi saa yu musique mu neex saa yu wootee mu neex te Wally kenn ku ne xam na ne moom laay cité parce que moom moo yóbbu màkk te dama dégg ci biir màkk gi mu ne loolu mën nga cee am tuyaaba waaye kilo yóbbu mën na cee am bàkkaar ma yaakaar ne ki fekk sénégalais yi di xaar benn mbir àdduna wërngal képp toog di ko xaar mu jël seen xol jël seen xel jël yaakaar muy fubbal Sénégal kenn ku ne xam ne coupe ñun ñëpp ñu taxaw di génnay sarax di ñaan yàlla yal na yàlla may sénégalais yi ndam ma gis ne moom mu génn ne coupe bi du mës sa ñëw Sénégal ma bëgg a xam ne kon bu waykat bi yóbbu demee safara kon kàcckat bi fan la war a dem te ma dégg na yàlla li mu gën a xaraamal ci lépp mooy kàcc fen du ko jéggale ma bëggoon nag ci jéggalu nag ci kàddu yi ak fi ma jóge ma bëggoon mu utal ma foofu ay leeral tuuti rek ma doog a mën a gindi mën a jàll da nga ñëw sur la défense sama gan la tamit non dañuy waxtaan soxna si euh, léegi même ma tontu la. su ma la tontoo bu noppi. ñaar am dimbali ci lu bari ñaar mooy am ñaar. may ma may ma waaw léegi ma yeggali sama émission. maa ko gën a ñaaw la meñ. waaw bàyyi am ngant ci émission bi vraiment mosuma dagg émission ñi bi mais yaa naa ko def. leen mhm. mhm. may jëggal parce nit su lu waxu dëgg amutoo lay wax moom parce que da nga demoon na ma. man kenn ngeen ma ñëw toog. ñëw naa kii ñëw toog kon nag bàyyi ma bàyyi la nga émission man ma ñibbi déedéet déedéet ma dem bàyyi ma dem. bàyyi ma dem nga eggali bàyyi ma dem nga àggali bàyyi ma dem. léegi toog ma wax la taxaw lii dañ koy jàppee daw te bëgg ma mu demee nii mu tax kuy dëggay bokk ak man émission. mooy koo xam ne dangaa taxaw publiquement kàcc ne lii du am ci Sénégal